def lu la neex te kenn du ko faj monsieur le ministre yaakaar naa ne lañ ko def doo gis nañ ko waxtaanee moo ko war a jiitu puisque bu parler de dialogue yii tey dañu waroon bala ñu koo def ñu waxtaan tey nit ñi parce que nous sommes les représentants du peuple mais du Sénégal monsieur le ministre force plan nag moom force yi ñëpp traqué leen d' accord naa ci monsieur le ministre monsieur le président je remercie. pour 42% des Sénégalais qui ont voté contre le président Macky Sall parce qu'ils ont compris le cri, le cri de cœur des opposants. Le cri de cœur des, oppos, des opposants, où sont les prémices des, ministres, des, des, conseils des ministres euh, décentralisés Monsieur le ministre, monsieur le président, maa ngi laaj élèves yi nga xam ne ba léegi seeni bourse ñu koy jooy ana promesse bi monsieur le ministre maa ngi wax ne li tax les 42 n'ont pas voté sentir nañ ne suñu doom yi les marchands ambulants parce que tout le monde ko par pas accéder dans les bureaux ba tey seen problème rek la monsieur le ministre les femmes les 7 virgule 100 pour euh, les 7 pour cent de de euh, de de la ménagère sentir ko kon ñu leen di gërëm bu baax les 4 58 nag ki ñoo wote dama ne caw saxiir faru lu ma neex lay def waxoon nañ leen fii ne leen sombi bu njëkk ba neexul muy les sept ans bu leen ko sombi ñu ne dañuy sombi bu leen ko sombi ngeen ne da ngeen koy sombi bu leen sombi waa ji maru ngeen ne da ngeen di sombi ba def ko cinquante huit pour cent voilà maintenant les résultat ça ne fait que commencer dama wax ni man comme li wax premier ministre ma ci wax ndax am na ñu fi jaaroon dañoo indi Abdoul Mbaye muy un premier ministre démocrate technocrate xam li fi fii métti ñu jële ko fi indi ndeysaan ma femme Mimi Touré muy accélérer la cadence vers les prisons ba tax ñii ñu exilé leen ñii ñu ñii ñu tëj leen ci kaso bi te defuñu dara ñu war ko nag indi Boun Abdallah Dionne le danseur de Mbaras xam naa dañ koo wóoluwul moo tax ndax comme je l'ai dit à chaque fois premier ministre day am ambition doon président de la république su fekkee juróom-ñaari at président Macky Sall def am fi ñetti premier ministre remplacé leen doyu ko kon nag wax dëgg yàlla ñoom war nañoo seetaat seen bopp foogee ne séeréer mexe naa nuun mexe naa nuun o séeréer ka jaga jom o séeréer jaɓ ete jaɓe jikwel ka naxa nuun anda keta laya lay <laughs> bàyyi leen waaye bàyyi leen waaye keta laya fop ka naxa nuun tous refe te ndigil xan nu xëj xan nu bëgg a ñaam nu ñaam kee xan nu bëgg a yer nu yer kee xan euh, euh, kee njang njang kee kuuta lay na kaa naxaa nuun saaxle ak ak ka marché à reculons saaxle ye a tawada rek una mene wiin we ka ñaamoogu yeroogu daxa soxla den to o le to xet e no saaxle donc monsieur le président monsieur le ministre pour terminer pour terminer je demande en, en même temps que moi la tombe où est enterrée euh, est enterrée la constitution blindée bi ñu waxoon ne dafa am wala yow daal yow